ñëpp war nañu dellu suñu xel ci yàlla te xam ne lu fi waay nekk adduna du kër duna du kër adduna du kër teranga yi leen yàlla jox bu leen ko walbati ko def ko gannaay di ko xeex xeexe seeni morom waxatuma laa fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole bu ñu la dénk te mu war ne ëllëg dees di rocc ci doole ji ni ki lamin nga ñëw tëdd fi dootoo man dara say bokk duñ la waxal lu baax dara jaru a déglu leen tuuti man waxuma politique waxuma pour ñu applaudiser dama leen di wax ne man mi wax ak yéen ñi déglu nañu fab loolu def ko suñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk mi ngi la nekk te xamuloo ni ngay dikkee lan la ñu xam ci biir Lamine si mu nekk léegi ku ci xam dara ya yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom kan la ñu yaakaar ak di jort allahu subhanahu wa taala li nga xam ne lépp dana dem sa des nañu jaamu yàlla te bàyyi par parloo bi te bàyyi po bi te jéem a xam lu yàlla xam nañu koy jaamoo waaye di dugg ak di génn tëral sa lammiñ te kenn signéwu la permis nga sëgg ci deru gor yi soo lëggee daa dajeeg koo xam ne ki avocat du fa jariñ dara kenn rek la mooy président ba mooy juge ba mooy avocat ba mooy procureur ba dëgg moo fay avocat dëggay layoon teel yàlla ba mu xam ne kii mooy gañ avocat bi gañe na mu ne bay na la dëgg de nañ jaamu yàlla te bay pomi te bay kattan yi ñu déñu nit ñu fab ko jox ñu bi seen dooley bopp yàlla baaxee leen jiital leen suñu kanam ñu fab doole yi jox leen ñu walbati ko tëgg ko gànnaay di ko rey jaamu yàlla yi du dëgg jaamu leen yàlla te ngeen bàyyi caaxaan wa moo di dëgg